ba ci téeméer yoo jël juróom-ñaar yi lu teg benn waaye nag dafa mujjee wàcc ba ci téeméer yoo jël juróom-benn yi li ko waral moo di croissance bi wàññeeku na budget bi nag am nay jafe-jafe recettes yi gañeetuñ lu bëri bor yi it na effet mi nag rëdd wu ñuul kukk la lan rëddal situation économique bu dëkk bi ndaxte neen c'est catastrophique noone sax lañ ko duppee les éco yéen kaay ñëw di ko feellu ndaxte nee na abb yi nga xamante ne nag ñu ngi koy abb biti réew seer na lool ndaxte nag niñ koy fayee dafa metti taux d'intérêt bi nag seer na it loolu moom la ñuy gañe ci reset néewu na tamit budget bi nag naam yokk na bu baax a baax waaye nag dañ ci nemmeekuy jafe-jafe croissance bi moom dafa wàññeeku bu baax noonu daal la ko FMI xamle Walf Quotidien ni ak lu ci mënti am mi nag tableau wu lëndëm sax la fësal ci situation économique réew mi moo tax nag mu sampu laaj ne jëwriñ bi nga xamante ne nag moom lañ dénk koomu réew mi ban njëriñ la fi am ndaxte nag FMI ban fi ñëwee am seen mission njàq rek tiis ak jaaxle la ñu am le quotidien yéene kaay ni jaaxle goog nga xamante ni moom la FMI am ba ñu waral ñu génn nag fësal ab tableau bu ñuul kukk ci suñu situation économique réew li ko waral moo di àbb yi nga xamante nag ñi ngi koy àbb biti réew cher na loolu jafe na bëri na te nag buñ koy fay day metti loolu sunu boor moo tax nag journal bi ne boo moytu nag li des ci at bi yëpp ci jafe-jafe la ñuy nekk ndaxte PIB bi nga xamante nag yeggoon na yoo jël juróom ak lu teg wàññeeku ba ci téeméer yoo jël juróom-benn jamono jooj nag enquête yéene kaay ñëw ñëwaat ak ñun ci aay nga xamante ne nag ñu ngi koy aay yenn ci kilifa ñu génn réew mi loole nag moo jaaxal nguur gi moo tax nag ñu ne foog ñu càmbar mbir yooyu le ndaxte lii mi ngi tàmbalee bëree ñi nga xamante ne nag ñi ngi leen di aaye ñu tukki bi ci mujj moo di ki fi nekkoon directeur général bu Petrosen di Manar Sall moom mi nga xamante ne nag dafa bëggoon a tukki dem ba aéroport ñu daal di koy wàññi jamono jooj nag la Le Soleil yéenekaay ñëwaat ak ñun ci fës satelit day démb nag ca jam ñaajo njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na nag dinañ am benn centre spatial moom nag mi ngi rafetlu baax sunu satellite bu njëkk bi nga xamante nag moo di gaynde sat 1 na nag nan am satellite stationnaire ba noppi nag satellite bi nga xamante nag moom la ñu am satellite bu mag la bu mucc ayib la ba noppi nag ay jumtukaay yu am solo moo ci am moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci journal bi Le Soleil yéenekaay mi ngi rafetlu bu baax suñu xarañteefu ingénieur nee na ñoom seen xam-xam nag kenn du ko naataable mi ngi koy lu bu baax ndax xam-xam bu mucc ayib la ñu am ca jamono jooj nag yëpp a ngi tiwaawan journal bi di Sud Quotidien jël daamaaram dem ba nawlee nee na nag démb ba ñuy ndar kepp burdu bi taalibe yi fu nee lan jógee wuy si Maodo bi nga xamante ne nag mi ngi gane woon àdduna 1855 làqu 1922 wooteem googu nag taalibe yu bëri wuute ko journal bi ne loolee lépp nag ci wàccaay mawlid bi la wala sax anniversaire gane àdduna sang bu tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp ka guddik dimanche fukki fan juróom jàpp altine fukki fan ak juróom benn ci weer wi ñu nekk li ci gën a neex taalibe yi nag moo di tey jii ci samedi bi caabi yi nga xamante ni moo di caabi grande mosquée wu Tivaouane bi nga xamante ni nag jamono yëpp moom lañ doon yeesalaat caabi yooyu nag la ñuy jébbal xalif général de Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour l'observateur ñëw ni bëccëg bi nag bëccëg bu am solo la ndax ndax dafa yemook anniversaire génnu àdduna Serigne Abdou Aziz Sy ñu gën ko xam ci dabaax moo tax nag journal Futurs Médias bi ne tey nag ci Tiwaawan jumaa yëpp daan amal xadaratul jumaa ngir màggal bis bi bis bi la jour ñëwaat ak ñun ci gàmm gi moom nag mu ngi fësal ci xëtam mu njëkk moodo mi nga xamante ni nee na model le modèle prophétique noonee sax la ko fësalee ci xëtam mu njëkk ndaxte nee na El Hadji Malick moom nag dundam yëpp mi ngi ko jébbaloon sang bu tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko tagg di ko liggéeyal ca jamono jooj nag libération yéene yéenekaay ñëwaat ak ñun ci agression bi nga xamante ne nag moo amoon ci digg bëccëg la amee woon foofee ca HLM nee na leen fekkoon ci hôtel 5 cinq heures du matin di noos ak a ñu daal leen teg loxo am na benn scooter bi nga xamante ne nag bokkoon na ci agression bi tegaale leen ko loxo ci ba ñuy amal benn opération journal bi ne taximaan bi nga xamante ne nag dafa fekke woon mbir yi moom nag dafa weddi woon boobu set ni moom mos sa for dërëm moom mujj naa nangu ginnaaw bi nga xamante ne nag alkaat yi fekk nañ ci otoom dix mille ci lay soog a nangu tàggat yaram ak réew mi sport afro basket U18 demi-finale sunu gayndey ndaw yi mujj nanoo nërmelu ci kanamu Mali journal bi di ñëwaat ak ñun ci coupe kaaf jaraaf moom nag moo fekki woon waa Yarko bu Abidjan dafa témboog ñoom record yéenekaay dem ba Angleterre ñëwaat ak ñun ci match Tottenham Arsenal Pape Matar Sarr di doomu Sénégal bu nga xamante ne nag ñëpp ngi koy xaar ci match boobule ngir mu def jaloore gët yëpp ngi tegu ci moom ñu yendoog jàmm